docteur Fatma Guenoune ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay fay. Mhm. ñuy fàttali suñu auditeur ne ñoo ngi dalal ki jiite ligue sénégalaise euh, de lutte mhm. contre euh, le cancer tey euh, ñuy waajal bés bi nga xam ne moom lañ koy màggal maanaam xeex jàngoro googu ñu bëggoon a xam Sénégal ci xeex gi sax fuñ ci toll. ci xeex bi am na ay jéego yu bare bare bare yi euh, nga xam ne ne am nañ ko ci wàllu xeex cancer mm-hmm. parce que tey jii ñu ngi rafetlu euh, euh, jigéen ñi nga xam ne ne am nañu cancer buntu buntu suñu rukaay ak cancer wu ween mm-hmm. dañuy faju ci seen chimiothérapie dañu fay dërëm te yeneen cancer yi tamit njëgu chimiothérapie bi wàññeeku na ba ci soixante pour cent mm-hmm. donc xam nga loolu am na ay jéego ñi daan fay ay trois millions dem ba fayu ci ñu dërëm kon loolu le am na ay jéego ba pare radiothérapie bi nga xam ne ne euh, accélérateur de particules la mhm. euh, président de la république euh, maintenir na ko à cent cinquante mille fanweeri junni mhm. fi nga xam ne ne privé yi ñu ngi ci ñaari millions ak genn wàll mhm. donc am na ay jéego yu bari yi nga xam ne ne def nañ ko ci fajum cancer ci Sénégal. tey ji Sénégal yan cancer ñoo fi gën a bari. Euh, cancer bi ci jëkk ci Sénégal bu gën a bari muy cancer bu buntu ci njurukaay bi mhm. ñu teg ci cancer wu ween teg ci cancer wu foie. Mhm. ak cancer prostate mooy quatrième. cancer mhm. moo nga xam ne ne cancer bi góor dong lay dal ak euh, cinquième cancer bi muy cancer u estomac nga wax ko cancer du col de l'utérus tey ji mënoon nañu xam nan lay manifesté woo signe euh, voilà cancer wu buntu butu tunjurukaay dina toog lu yàgg euh, si ci nit ki te du am signe mhm. donc suy ñëw mooy ne su jigéen bi lëkkaloo ak borom këram mu gis deret loolu le mooy ci cancer bi ci début lay nekk mhm. mais su demee ba cancer bi law na bu baax mooy ne dafay xëpp deret te du waxtu réglam mhm. te yenn saa yi sax muy am ndox buy génn te waruñu mooy cancer bi nga xam ne ne duñu xaar xëpp deret euh, jigéen bu nga xam ne ne yaa ngi nekk ci néegu sëy am ñaar fukki at ak juróom mhm. war nga mun a commencer di saytu sa yaram ci wàllu cancer boobu la. ñu bëggoon a xam tamit ban cancer mooy gën a faat euh, fii ci Sénégal. Ah, muy cancer buntu butitu njurukaay boobu la. ba tey moom euh, la. ba tey moom la mooy cancer bi nga xam ne ne moo ëpp euh, ci cancer soo jëlee cancer yépp góor ak jigéen. Mhm. mi ngi ci mille neuf cent trente sept cas. par an mooy ñaari junni bu manqué. Mhm. te dina faat. Euh, junni ak euh, juróom-benni téeméer ak fukk ak nit chaque année fii ci Sénégal. Mhm. chaque année. Mhm. donc te cancer boobu le mun nañ ci def ay jéego mooy ne ne ñàkk xale yi. Mhm. parce que ñàkk boobu le dafay tax ne euh, doomu jàngoro bi su ñëwee ci yow bés boo lëkkaloo ak góor. te euh, àggul ci yow sax euh, doomu jàngoro bi noonu lay duggee ci jigéen bi mm-hmm. donc euh, suñ ko ñàkkee ci juróom-ñeenti at dafay dëgëral organisme am mm-hmm. ba nga xam ne ne virus bi su duggee ci moom daf moom organisme bi mooy faat virus bi. Mm-hmm. ñu gis mhm. ne am na beneen thème bi nga xam ne da ngeen ci gën a euh, gën a sensibiliser muy cancer du sein euh, tey ñu bëggoon a xam euh, jéego yi fu mu toll. waa jéego yi li ma wax ci cancer yépp mooy ne gratuité boobule dañ ko loolu moom moo am solo. Mhm. parce que chimiothérapie bi nga xam ne ne daan nga def deux millions trois million ba six millions cure bi tey ci ku am cancer war def sa chimiothérapie mu gratuit Euh, loolu moom lu dul sant yàlla la mhm. mais dafa def mooy ne li des ci faj bi mhm. mooy opération bi ba tey njëg bi soppeekuwul mhm. euh, radiothérapie bi euh, wàññi nañu njëg bi parce que njëg bi sax wàññeeku na bu bari par rapport ak ñi nekk ci privé yi parce que ci fanweeri junni lañ koy def te loolu yëpp nga xam ne ne amuñu moyen dañuy daw ñëw ci ligue sénégalaise contre le cancer pour mu jàppale leen ci seen i faj. tey nga ko sax justement feebar bu cher la ndax euh, bu weesoo jàppale gi am na ay plaidoyer yi nga xam ne yéen a ngi koy def au niveau de la ligue sénégalaise ngir ngeen gën a mën a taxaw euh, ci wàññi euh, nu mu gën a wàccee li di prise en charge bi. waaw plaidoyer bi mooy lan xam nga fokk ñu mun Euh, maye yeneen faj bi mm. donc euh, yeneen euh, pàccum faj bi mu nekk gratuit mm-hmm. luy opération bi wala radiothérapie bi mais foog naa ne suñ fi ñu jógee ak fi ñu taxaw kii ren mm-hmm. foog naa ne mun nañu yaakaar ne ne Euh, dinañu dem ba fajum cancer dina gratuit ci Sénégal parce que président de la République moo jëkk porté mhm. plaidoyer bi parce que demoon na ci benn ndaje muy wax ne ne dafa bëgg fajum cancer bi euh, mu gratuit ci Sénégal mhm. donc mhm. euh, ñun li ñuy ñaan askan bi mooy ñu jàppale ñu Euh, suñ ñu jàppalee ndax ñu jàppalee euh, euh, waa Sénégal ñi nga xam ne ne malade yi am cancer mhm. te tamit li ñuy suñu beneen plaidoyer mooy maison de vie ah te tamit li ñuy ñu ngi ko def Séné ligue sénégalaise def na ay jéego mhm. mooy ne dem nañ ci ñaar fukki ak juróom-ñeenti ville ci Sénégal mhm. te ci district sanitaire yooyu le def nañ def nañ fa ay appareil pour euh, ku dem euh, saytu sa bopp ñu gisee lésion précancéreuse bi ñu fay euh, ñu faj la ba nga dellu si ci sa sago pour bañ a am cancer buntu butitu njurukaay ñu ngi ut ay partenaires nag mhm. pour district sanitaire u Sénégal bi yëpp ñu wër soixante seize mhm. soixante dix huit districts yëpp mhm. ci Sénégal ñu am appareil bu nga xam ne ne am na benn appareil bu bees bu ñuy ooyee thermoablation nga xam ne ne dafay rey lésion précancéreuse bi nga xam ne ne doonagul cancer mhm. lool le foog ñu am ñu ñu jàppale ba pare ñu mun a former sage femme d'état au Sénégal yëpp sànq ñu koy wax ci kàllaamay euh, nasaraan euh, tey jii euh, am na ñi nga xam ne dañuy ñaxtu wàllum scanner bëri nañ ci liñ ci liñ leen ci dégg ak it registre yi nga xam ne mooy recenser tumeur yi ci diwaan yi tey yooyu tamit fu ngeen ci toll waa registre bi foog naa ne Euh, euh, loolu la ay jéego yu bari avancé na parce que xalaat nañ ko ba teg nañ ko léegi mise en œuvre bi rek moo des bu nga xam ne ne ñu lëkkaloo euh, région yépp lëkkaloo pour mun a euh, dugal seen données. tey mhm. euh, docteur am na ay feebar yi nga xam ne nit bu ko amee euh, comme cancer bi amaane na sax la nga am yépp di nga ko dépenser mais tey est-ce que ñoom ñooñu nga xam ne ñoo yor jàngoro bi am nañ soutien bu doy bi nga xam ne dinañ leen mën a jàppale ci moment yu métti yooyu ak moment yi nga xam ne wutum xaalis bi sax day bëri pour ñu mën a jàppale seen bopp. waaw loolu moom xam nga loolu dafa jafeñ. parce que soo xalaatee ne ñi néew doole Sénégal dañu bari te sénégalais yu bari soo jëlee téeméer euh, juróom-ñetti fukk yi amuñu prise en change Euh, bi euh, donc euh, loolu moo tax ku néew doole naka ngay jàppale keneen ku néew doole. Mm. léegi bedd bi gaa wàññeeku na psychologiquement mm. bedd bedd bi moom laay wax beddi mm-hmm. xam nga bu njëkk ba malade bu am cancer dañ lay beddi mm-hmm. sa famille bàyyi la nga wéet yow ak sa feebar foog naa léegi bi ñu comprendre ni cancer bi tabu bi nga xam ne ragal bi nga ko ragaloon kenn ragalatu ko mm-hmm. kenn dootu leen beddi mais ba tey euh, bunge leen ci financièrement loolu moo am jafeñ euh, moo tax ñun euh, ligue sénégalaise ñun fi nekkal malaat yi am cancer mm-hmm. donc dañ leen di jàppale kéem kattan bien que suñu doole mi ngi néew Euh, mais lu ñu am tamit malade bu bind sa demande dinañ la jàppale lu ñu mun. ci jàppale googu la tey euh, LISCA euh, en terme de jàppale nan la ko état di jàppale. xam nga état ñun daf ñu jàppale pour suñu fonctionnement. dix millions la ñuy jox pour suñu fonctionnement mooy fay suñu loyer fay ndox fay làmp fay employé yi mhm. mais ci ñun accompagnement bi nga xam ne ne. Euh, euh, dañuy accompagner sénégalais yi mm-hmm. ñu ñu ko jëlee ci ndimbal yi nga xam ne ne euh, sénégalais yi seen bopp ñoo ñuy jàppale mm-hmm. defoon nañ fi ay téléthon en deux mille dix deux mille seize deux mille dix huit mm-hmm. ah ak deux mille vingt defoon nañ fi téléthon ci yooyu les sénégalais yi ñoom ñooy joxe. seen ndimbal te maa ngi ciy remercier président de la république parce que moom mooy joxe li ëpp ci ndimbal boobule parce que chaque fois dina ñu jox juróom fukki million pour ñu jàppale euh, euh, peuple bi donc euh, ñeneen ñi nag képp ku am sa dërëm jàng ko def Euh, donc fi mu nekk ni suñu doolee néew na te malaat yi dossiers yi bari na. ci wàllum sensibilisation est-ce que à travers campagne ak plaidoyer yi ngeen di def ñi ñaa ngi gën a wuyu si di teel a dem dépister wu. waaw euh, parce que euh, ren ren mbas baa ngi ci dëkk bi teewul octobre bi ñu def ren dépister nañu juróom benni junni ah, ak téeméer ak ñaari téeméer ki jigéen. xam nga loolu le ci benn weer bien que respecté ñu distanciation bi te def nañ ko mm. euh, donc mooy ne ne te euh, te Dakar rek la ñu yem de te nit yi dañu jóge ci région yi bi ñu déggee dépistage yi ñëw ba Dakar pour saytu seen bopp parce que jaxal na leen ko mm. donc foog naa ne euh, ñëpp. daal bàyyi nañu xel ci seen wér-gu-yaram te xam nañ ne euh, cancer feebar euh, maladie bi nga xam ne ne faj bi dafa jafeñ moo tax léegi nit yi ñu ngi teel a fagaru. ci mhm. euh, fagaru googule nan ngeen fa yéene màggal édition deux mille vingt et un bi. deux mille vingt bi nag li ñuy wax mooy ne waxtaan ak askan bi mhm. ci média yi. parce que comme mënuñu dajoo fenn donc ci média yi la ñuy waxtaan pour dalal seen euh, xamal leen lan mooy cancer te naka la ñuy def pour aar seen bopp ci cancer te cancer bi nga xam ne ne moo gën a bari ci Sénégal naka la ñu war a def ba nga xam ne ne dindi ko fi mm-hmm. maa ngi ñaan nag sama mbokk jigéen yi mm-hmm. ak góor ak jigéen comme responsable famille bu ne soo amee doom bu ndaw mooy li nga xam ne ne mooy kado bi nga ko war a may mooy vacciner ko parce que euh, vaccin boobule def na plus de trente ans ñu xayma ko ba xam ko ba xam nañ ne efficace na ba Sénégal jot ci en deux mille dix huit te ñi yàq xel nag te ay sénégalais ñoo yore réseaux sociaux yi di yàq xel te vaccin boobule am na efficace parce que soo demee ci pays tubaab yi nga xam ne ne ñoom cancer buntu butitu njaar butu euh, buntu butitu amatu fa mhm. te ñoom dañu vacciner xale yu ndaw yi xale yu jigéen ñi vacciner xale yu góor yi donc xam nga ñoom passé romb nañu te ñun ñu ngi toog fii euh, nga jigéen ñi war a yóbbu seen doom ñu leen di wax ne ne bul vacciner sa doom te mooy cancer bi gën a faagaagal jigéen. Mm-hmm. donc euh, am nañu vraiment taxawaay bu ñu war a defaraat ak askan bi xamal leen ne cancer bi nga xam ne ne amu benn risque la. xanaa euh, boobu vaccin bi ñii ñi laam-laamee euh, moo tax appel bi. xam nga ñi ci ñi taxaw. Mm-hmm. Ah, xam nga soo yoree sa réseaux sociaux. Mm-hmm. wala def sa vidéo dugg ci YouTube wax lu la neex ñu tas ko ci biir dëkk bi ñi ci di wax dëgg la wala du dëgg. mais man lim lay wax ni ci HPV man ci laa soutenir sama thèse ci ci vaccin bi génn na euh, biñ ko commencé vacciner bi vaccin bi génnee 1995 mhm. la génn États-Unis ñu defar ko donc dëkk yi ko adopté ñoom romb nañu Sénégal c'est vrai que vaccin bi dafa amoon njëkk mais président euh, dugal na ak ci taxawaay bi mu taxaw ba vaccin bi mu nangu dugal teg alalam alalu réew bi ba vaccin bi gratuit bu nga ko defee ñi ci commencé di wax di ko ñaawal te yeneen dëkk yi ñu ngi vacciné te ñoom romb nañu cancer kanser buntu suñu raay eh, njurukaay amatu fa. Mhm. ñu ko fay yoon ni mooy africain yi fay dem. mais ñoom ci seen askan amatuñ ko te ñun askan bu nit ku ñuul mun nañ ko eh, eh, dindi donc suñu vacciner xale yi jigéen ñi commencé nekk ci biir néegu sëy di saytu seen bopp chaque année. Mhm. foog naa ne dootuñu amati cancer buntu butitu njurukaay. d'accord merci beaucoup docteur Fatma Guenoune. merci beaucoup maa ngi lay remercier.